bi nga xamante ni sëriñ Afia Bousso al imam mooy njiit li ñu ànd koog mbooleem jëwrin yi nga xamante si ni ñoom ñoo ŋànk liggéey bi sëñ Abdul Ahad Bousso Muttalib nekk secrétaire général bi jiite ko nekk nii toog ak mbooleem ñi mu àndal liggéey bi ñëpp tey jii nag ñu teew fii ngir fàttalante ak soññant ak gëna ñaaxaat ci liggéey bi bañ xam lii ñuy def dëgg-dëgg sabab bi ak njariñ li moo tax tey yi ñu dajee ngir ànd kook mbooleem soxna yi ñi nga xamante si ni ñoom nañu àndal liggéey bi ci bis bi muy bisu gaaw bi xam nañ ne liggéey bi day liggéey bu yaatu boo xamante si ni nekkul liggéey bu ndaw te ni ko boromam bëggee rek ngir fuñ man di toll barab bi muy guddi muy bëccëg ñu fexe bam mu ak set loolu rek mooy mooy mooy mooy bëgg-bëgg bi te bëgg-bëgg boobu borom bëgg ci nañ fas yéenee dox ba waxtu wu ci nekk ñu fas yéene lenn luy niroog barab bi rek ci lu yellawul ak moom wala luy niru ak taq-taq rek bañ fee am kon yooyu moo waral ndaje mi moo waral tamit kàddu yi soññee ak kàddu yi yi nga xamante si ñoom la jëwriñ yi war a yëkkati kon dañ doon ubbi rek ak di dalal tamit suñ gan gu tedd gii nga xamante si ni mi ngi bàyyi ko ci sëñ fàllu Mbacké Jumaada moom moo fi teewal moom moo waroon na teew waaye moom la yabal ngir mu teewal ko fi ñoo ngi koy nuyu di ko siyaare bu baax a baax ci muy sëñ Seexuna Mbàkke euh, ñu ngi lay dalal bu baax sëñ bi euh, di ko sant bu baax tey jéggalu nag ndax xam ne liggéey bi daal kon mi ngi nii dañuy jox suñ jëwriñ yi bu ko defee ñoom ñu tàmbali ko leeral li nga xamante si nii mooy dëgg-dëgg liggéey bi buñ pare tamit soññee ci gën cee def ak laabire bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñi ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ndokkeel di leen siyaara di ci jiital jëwrini borom liggéey bi di cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko ni ko sëriñ cheikh Abdou Diatara waxee léegi di leen nuyu it ci turu jëwrini mu muqaddamatul xidma di fiir bu Bousso imam yàlla dogal kilifa yi topp ci moom ñëpp ñu ngi fi teew bu ñu tuddee secrétaire général bi di sëriñ Abdoul Ahad Moutalib tudd it président commission organisation de Serigne Fallou Mbacké mi nga xam ne mooy nii liggéey bi dana ñu mën a yóbbaale ñu ci des président commission yépp ñu ngi fi sëriñ euh, Serigne Cheikhouna ñu ngi lay nuyu di nuyu tamit Serigne Cheikh Thiam Serigne Massamba Thiam di la yóbbante nuyoo tamit ci sëriñ Fadilu Mbàkke Jumaada mi nga xam ne tey jii moo doonoon ganu jumaa ji fii ci liggéey bu am solo bii di bisu gaaw xam naa xëy na ngànt yi moom dawul xam nu mu demee waaye li ma la doon wax léegi rek li ma la déyoon léegi rek boo ko teeloon wax <laughs> euh, dana ñëw xam naa ne su ko defee ñi ngi nuyu tamit soxna Bintu Saar ak mbooloo mi mu àndal di nuyu soxna Mbay ak Jum ak mbooloo mi mu àndal di am mbégte bu baax a baax ci ñëwaat bokkateeg yéen ab jataay segam nag sëriñ bi teew na teewal kilifa ak soxna Mbay ak mboolem ñu jóge ci gox boobu jaadu nañu fàttali ko tuuti ci liggéey bu am solo bii nga xam ne ñoom ñu ngi koy taxawee fii dayra muxaddamatul xidma xam nga ne ñoom la sëriñ bi dénk lépp lu aju ci jumaa ji ak pénc li ci jiitu nag mooy wàllu entretien set ak setal ak defar lépp lu yàqu beneen bi mooy sàmm worma ji ba nga xam ne ni ko sëriñ bi bëggee ak lim fi wax lim tënk ne na la ni la bëgg ñu nekkee ko fi ñi nga xam ne jub nañ te bëgg fee nekke noonu ñu accompagner leen ba ñu def seen jaamu yàlla te dara du ko rax waaye ñi nga xam ne ay marit lañ te fas ko yéenee doon ñu jëflanteeg ñoom ba génne leen fii loolu rek mooy tënk sàmm worma ji noonu tamit lañ koy sàmme ci armeel yi ak bàq ya ak beneen liggéey bu leen sëriñ bi di dénk di def loolu ñu gis ne nag liggéey bii di wàllu ceet gi benn bis walla ñaar walla ñett da cee doyut tax ñu amoon initiative bu xalaat ne kat biir semaine bépp jumaa ji espace bi dafa yaatu karo yu bëri mètre yi karo yu yaatu na te poussière bi bari na te it fu ñu toll ñu ngi koy jariñoo fu ñu toll ñu ngi jariñoo barab bi te saa suñu xëyee ñun ci suñ kër yi danañu xëy bale fubeere nettoyé fomp lënd def lu nekk te néegub yàlla bii moo gën a yell ci loolu rawatina néegub xaadim rasul bii kon ajjuma ak alxamis gis nañ ne du ci doy kon yeneen bis yi war naa am ay bis yoo xam ne dañ fiy ñëw te kenn ku nekk xam na ne gaawu ak dibéer timit bis la buy bari ay gan ndax weekend la day bëri ñu jóge ci dëkk yi di fi ñëw te jumaa ji moom karaas karaas ji su bëree rek poussière bi gën a bëri ak léeg-léeg jamono ji ni muy bindoo poussière day jékki-jékki wàcc ci biir loolu nag bi ñu amee xalaatu yaatal liggéey bi ci lañu ñu contacté soxna Mbaye ak mii ak euh, soxna Bintu ñu xam leen ci seenu njàmbaar ci seenu euh, farlu jaarale ko ci nag koo xam ne moo doon ànd ak ñoom liggéey bi di siñ Ablaye Diaw wax dëgg mu def contact bi ñu dem fa waxtaan ak ñoom ñu ñëw fii def ab jataay bu am solo fii ñu wax leen liggéey bi nga xam ne dañ ci tàllal loxo mbooleem taalibe Sëriñ Tuubaa yi ndax du lenn kenn lépp ñëpp la lépp ñëpp nag lu nay ku nee ngi ci Muxaddamatul Xidma moomul jumaa ji moom kese taalibe yëpp ñoo bàyyi xel barab bi ñoo fi am wàll ku yàlla dogal nag te Sëriñ Tuubaa boole la ci ñi fi war a liggéey da nga fi liggéey sëñ bi nag mooy tànnal boppam ñu fiy dugg ndax lu sellut du fi dugg ku amul yéene ju rafet tamit boo góor góorgóorloo ba ñëw tamit da ngay jékki-jékki rek gisaat sa bopp faneen ndax wa madd wa madd faxan wa madd faxan mi ngi fi aw yat la woo xam ne moom ku melul neneen rek mu mu dàkku la nga génn loolu nag tax na kon ñoom jàmbar yi bis biñ toogee fee jaayanteeg sëriñ bi ngir fas ko yéene liggéeyal ba léegi waxoon naa ko fii ci semaine bële bi ñu fi jëwee ne leen lu mat juróom benn weer a ngi nii matul xit ma di xool bisu gaaw bi nan lay doxe waaye képp ku fi ñëw ci jumaa ji bu gaawu jotee da nga xam ne gaawu jot na yéen ñi jaar ci yoon wi gis karo yi gis jumaa ji xam ngeen ne bisu gaawoo ngi nii ndax seet na wicc ba nga xam ne nit mën na fee ñëw def fi ak jaamu yàlla am ni mu ko bëggee ñu méngoog ni barab bi yelloo loola nag ni mu sete noonu la pëstéef bi mel noonu la takku gi mel noonu la fonk fonkeel gi mel ci teel a ndax daanaka ñoom neuf heures neuf heures et demi wala neuf dana fekk ñu noppi heure bii daw dana fekk ñu noppi fajar la ñuy lañu la ñëw soxna bint mii bi ñu génn ci jumaa ji bi ñu jullee fajar ba noppi laay daje ak moom muy dugg ak ñi muy àndal ñu bari kon euh, yitte ji ak pësteef bi moom euh, kawe na loolu nag su fekkee ne dañuy bàyyi ko foofu ci sëriñ Fàllu Mbàkke jumaa da kenn ku nekk xam ne yàgg naa dégg muy jël ay kàddu di tatagal ak a jaajëfal mboolooy Serigne Touba yi nekk ci dëkk bi te nekk ci li ñu war a nekk kenn ku nekk yàgg na yàgg na koo dégg ci ay xutbaam saa su nekk waxtaani koor yi day ñëw fii di ko ànd ak ñun saa su nekk kon jàpp naa ne kàddoom ak soññeem jeexital na ci mbooloo mi jóge foofu ba ñëw na feeñ ci liggéey kon loolu it ñu ñi ngi ko ci sant di ko ci gërëm te di ko ñaanal borom defal ko wér ak gudd fan kon sëriñ bi loolu daal ci tënk moom lañ la doon leeral di la ci di la dalal ci loolu liggéey la boo xam ne ñoom ñii ñi ngi ñëw tàbbi nañ ci di ci ànd ak ñun ñu jox leen benn bis ñu am benn bis boo xam ne ñoom lañ ko jagleel muy bisu gaaw su ñëwee mbooleem jumaa ji biir gi ak bitti gi danañ ko setal ci gaaw bu jot loolu noonu la demee tegu nañ ko nag ci am nos boo xam ne dayre bi faw mu dox ci am nos ci banqaas bu nekk am na ku ko yor amul lenn luñ dul contrôler ci jumaa ji lépp rek mi ngi ci ay loxo lépp it ñu ngi koy bàyyi xel lépp it ñu ngi koy teg bët ndax barab bi dafa ñor sëriñ bi lool ñorit taalibe yi fu ñu mën a nekk ci àddina bi yow xam nga ci dara en tant que imam fële ca Touba Livorno xam nga ne taalibe yi Touba gi niñ ko bàyyee xel jéggi na dayoo luñ fi gis lu ndaw ndaw danañ la envoyé audio wala ñu woo la téléphone ah, li ma gis fii li ma noonu nag sëriñ bee leen ci jiitu fuuf sëriñ sëriñ Mouhamadul Mountakha li ko waral mooy kii ñu yaakaar tey ak ëllëg fii la nekk waaye barab bi moom sëriñ bi fi ko aggoon wax ne su sama borom moo ma ko may te teg naa ci bët te dana am su ngeen ko defut junne yi ak malayka yi danañ ñëw def ko ku ci feeñ dootoo réer ku ci réer dootoo feeñ ndax da jublu woon rek ñu tabaxal ko barab bu jumaa ju rafet ju taaru déedéet dafa jublu woon mu doon seereem digganteem ak boroomam ak digganteem ak jullit yi ak ku ko mës a dégg ngir kalimatu laa ilaha illallah muhammadu rasulillah moo taxoon mu tabaxlu barab bi loolu rek la boo déggee ñu ne sëriñ bi tumurànkeel nañ ko fanweeri at ak ñett ngay laaj waa ci lu ko taxoon a jóg weesuwul diine weesuwul yeesal diine kon su defee lu mel nii jëmmal ko soo ñëwee danga xam ne kat ah, sëriñ bi nga doon dégg kat taxawal na diine nii defal na yàlla lu mel nii waaye nag ba koy tabax fan la jamono tolloon nit ñi amuñ woon luñ lekk amuñ woon luñ naan amun woon lu sol dëkk ci ay ñéegi ñax defal yàlla lu toll nii valeur booy valoriser jumaay Tuubaa foofu nga koy delloo loola moo moo moo tax fi mu toll sëriñ bi kawe ndax da cee jublu woon rek noonu rafet nu déedéet daf cee jublu woon tamit soo fi ñëwee soo àndee ku xamut dëkk bi wala ku xamut sëriñ bi nga ñëw dugg fii julli wala nga am fi ay rakka danga gis ñu fekk fi ak nosu ak diine ju sell ju tege ci sunna joo xam ne da nga fi mën a jëlee ak mbaax royee ko feneen danga nga danga nga da nga fi mën a royee lan moo tax daayira Muxaddamatul Xidma yi ñu fiy def yépp ci ndigalul sëriñ bi mu doon luñ mën a jël di ko yóbbu ci jeneen jumaa wala ci jeneen barab muy wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa sabbitanu bil haadil wa fii mooy seenu bàkk loola dafay jëmmal waxi sëriñ bi ak ñaanuk sëriñ bi waxtu jot mu ñëw mu ñëw aw am niñ ko defee nii tamit yow sëriñ Cheikhouna teewal fi sëriñ Fadilu Mbàkke Jumaada ngir soññ si ak jaajëfal soxna Mbay ak Jum mi ci liggéey bu am solo bii ak mbooloom noonu la kilifaam kilifa ak soxna Bintu Saara noonu la ko defe woon tamit muy sox sëriñ Moustapha Basir Sarr ñëwoon na fi moom it def nii soññ leen kon mu mel ne ñoom ñii seeni kilifa ñi ngi leen di teg bët guddi ak bëccëg nekk ci seen ginnaaw nekk ci seen kanam loolu dafa am solo lool ci ab liggéey bu nekk liggéey bu nekk rawatina booy defal sëriñ bi sëriñ bi daf koo teg ci ndigal ndax ñoom ñii ay soxna lañ dañoo am ay kilifa bu leen seeni kilifa bàyyiwutoon duñ ñëw kon loolu noonu la sëriñ bi daa doxee sëriñ bi ñi nga xam ne ñoom la daa defar ñépp da leen daa digal ñu ci am seen ndigalul waajur nit ñëw na ci moom ba agsi waajuram dàkkooru ci mu yabalaat ko loolu ko xam histoire sëriñ bi xam ko kon loolu it lu amal solo liggéey bi la euh, ñu ngi ciy sant bu baax di di leen ci gërëm su ko defee soxna Bintu ak soxna Mbaye sëriñ Fàllu mi ngi fàttali keroog bi ñu fi ñëwee ni ñu leen waxoon ne leen liggéey bi danañ ko gën a nosaat gën koo organiser gën koo jaare la yoon ba nga xam ne dafay gën a yomb tax na yeesal nañ jëwrin yi nga xam ne ñooy ñooy ñoo fiy teewal Muxaddamatul ma gaaw bu jot di ko ànd ak yéen muy sëriñ Modou Mbàkke mii daana daa ngeen ko ànd waaye yeesalaat nañ ko waaye sëñ Cheikh Abdou Lahad Diatara mii doon ubbi léegi da ngeen ko gis ci gaaw bu nekk ak sëriñ Cheikh Abdou Bousso mii ñoom ñett ñoo leen di accompagner ñooy ànd ak yéen ci gaaw bu nekk ci liggéey bi teewal fii Muxaddamatul ma ñu ràññee leen ci seen pastéef ak seen seen takku ak seenu mën a nos tax xam gi ñu xam yéen it fi ngeen toll ak ni ngeen takkoo moo tax ñu boole leen ak yéen loolu nag ñoom mu xaddimatul xidma lañ fiy teewal waaye yéen ci bi seen biir it nangeen di organiser ak nangeen ngeen di nose loolu it yéen a koy yéen a koy yéen a koy yor kon loolu jaadu nañu fàttali leen su ko defee dañuy tënk kàddu yi foofu ndax euh, naaj na mën a dalal sëriñ bi jox ko kàddu gi mu indi kàddu yi nga xam ne jële na ko ci sëriñ fa Fadilu Mbàkke euh, sant mbooloo mi soññ leen so amee yeneen kàddu yi ci war a topp incha allah dinañ ko mottali asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi alamin. sallallahu wa ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi ihsan ila ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa noo ngi leen di nuyu di leen siyaare te di leen balwaq di ñaan yàlla suñu borom yàlla na nu borom jéggal di ñaan di sàkku ci yéen ngeen ñaan ki fi toogee jaayatu jataayu sëriñ Touba yàlla na suñu borom bàyyi ko fi yàlla na borom wéral ko yàlla na suñu borom kàttanal ko te sàmmal na ko ndam la ci murit gi ndam la ci diine ji xanaa di ñëw di leen indi kàddu yi sëriñ Fàllilu ngeen teel a xam ni itam mënuma ko wuutu ci jataay bi dañuy indi ay kàddoom rek di sant di gërëm di wax ni sëriñ Abdul Ahad déglu nañ la bu baax a baax déglu na lañu bu baax a baax noonu ñu ko nuyoo noonu la ñuy nuyoo seen Abdou Lahad mii ci sama wet ak mbokk yu baax yi ngeen àndal yépp di leen jaajëfal di leen jaajëfal ndax ku di taalube wala sax ku di war na leen di jaajëfal te di leen ñaanal ndax fii ngeen taxawe ñépp a fi war a taxawe te yéen leen fa wutu xanaa di sant kon Soxna Bintu Sarr miñ ma nuyoo leen léegi ak ñi mu àndal di sant Soxna Mbaye Njum moom itam ak ñi mu àndal ci sëriñ Serigne Fallilou di leen wax ni maa ngi ànd ak sëriñ ma sàll càmm mi nga xam ni mooy kilifa Soxna Mbaye ak Njum ndax mooy magi boroom këram ñoo bokk nekk ca kër ga di leen sant soxna yi bu baax a baax di leen ñaanal di leen sant te di leen ñaanal yàlla na suñ borom jàppale leen yàlla na suñ borom taxaw leen yàlla na suñ borom dimbale leen yàlla na borom boole nu taxaw nu ñëpp may ñu ngërëmul sëriñ ngi tooñ seen bilaat léegi naa ko bi ku ñëwoon di def mu boo ñëwee ma ne ko jox leen ma dara mu ne ñëwal am ngërëmul sëriñ bi ma ne ko loolu moom may defaru àddina ak alaxira na suñu borom baal na ko di leen soññ bu baax a baax di wax itam ne am nañ mbégte lool lool lool ndax jombul Serigne Fallou bi may ñëw tudduma woon soxna Mbayang waaye ñëw fekk ko fi nag sama mbégte ndax ni muy yëngu xaw ni muy yëngatu ci ndax ca Touba ci kanam laa ko xamoon te ña ca gën a jàmbaare itam ca bokk ña ca a jàmbaare ca la bokk ñëwaat fekk ko ci fii kon loolu day gën a dalal suñu xel. di gën a dolli suñu yaakaar ci moom yàlla suñu borom jàppale ko te taxaw ko moom ñi ma di leen dollee soññi ndax yéen sax yéen a ci yoon wax ndax ku mu ci yéen tey jii daa bàyyi ay yitteem ngir sëriñ bi ci ñun rek tey jii daa bàyyi ay yitteem ngir sëriñ bi te yaa nga ca sawet koo xam ni jombul defewu ko noonee nga ko defee waaye sëriñ Abdou wax na ko ci ay waxam barab bii mooy gën barab bii bi gën ci buñ war a sonne ndax barab la boo xam ni ni ko sëriñ bi waxee sama borom wan na ma ko waaye ca xasida ga sax nag dangay gis ni boromam wan na ko wa agfir liman banaw bina ahar rafi ba melal ko nag ba melal ba <laughs> ni tabax war a mel waaye mu lam ca teg mu am ëpp solo waxteer liman banaw banaaha rafi waxfir liman amarahum bihi jamii waaye wali wali jamihi man aanahum ala binaiha allati bi fadlika atala kon ba ba àdduna di tukki lu fi waay def yaa yaag ñooñee yéen a bokk liggéey ba ndax ba ko sëriñ Fallu Mbàkke tabaxee ba mu sotti ak Seex Musaa mag ñu baax ja suñ ko bàyyi woon kenn nekk di ko saytu tey jii kenn du fi dugg kon bu ba àdduna tukki lu fi waay yëngutu rek yaa ngi ci biir liggéey boobee yàlla na suñu borom boole ñu ca di leen wax ni noonu rekk la ndax ñiy dox jëm ci àdduna farlu gi ëpp na te taxul ñu am liñ bëgg ci àdduna ñiy dox jëm ci àdduna niñ ci farloo ëpp na te tax taxut ñu am ci liñ bëgg kon ñun ñu war a dox jëm ci yàlla bu ñu àdduna fab fab bi bañ ñàkk a dox jëm ci yàlla dama gis ñaari bayiti sëñ bay jaxate yu am solo lool yoo xam ne doyoon na daanaka awaare daf ni gis naa la ngay dàq ab yaafus te séenu la ko kon yow na ngay def ba jot njaxlaf te dàqu la ko <laughs> du sotti gis naa la ngay dàq ab yaafus te séenu la ko kon yow na ngay def ba jot njaxlaf te dàqu la ko daani kuy sit ku yitte woo àdduna kay sàkku am ko te ko ku yittewoo àddunaa koy sàkku am ko te far laa far wacc laaxira bañ koo sàkku am ko te ko kon ñun dañoo war a liggéey ngir luñ dundee ci àdduna ba noppi fàggu àlaaxira kon mun ñun waruñoo noppalu waaye na waruñoo fàtte li nga xam ne mooy suñu jëmukaay te mooy àlaaxira jooje te mooy àlaaxira jooje kon nañ gën di takk laxasaay yi di gën a góorgóorlu te eh, noonu ma leen ko waxee bu ma leen leen am na ñoo xam ne si seen farlu nañ lool sakku àdduna texul ñu am ko damaa dem fa nga xamante ni ñoo jiitu àdduna gis nañuy sakku àdduna te mu wóor na ma ni mu wóor ma ni amuñ ko kon ñun ñi nga xam ne nag dañoo war a bëgg a jagal àdduna ba noppi jagal àlaxira ñun ñun uh, uh, duñu noppalu duñu waruñoo sonn waruñoo sonn waruñoo tàyyi waruñoo jéem a sàkku noflaay bi xadral kat di ma maali wa man talaba lahu sahara layali tanuumul majda summa tanaamu laylan laqad atmata nafsaka fi lmuhaali kon daal nañu nañu ñu ngi góor góorgóorlu di doolee sant soxna yi nag sëñ bi moom euh, moom xam naa da ngeen ñaanal ñëpp te beral leen ak ñaan ndax gis naa ne dëkk bi daal lu ñu fi yëngatu lu ñu fi yëngatu boo demee ci kanam moom soxna yaa fay damaa xamul nag jëmbul barke Xadija ba ma wàcc ma wàcc ci ñoom ndax wooteeb lislaam ba ba mu ba mu ba mu amee jigéen a njëkk a wuyu kon nag yéen itam yéen a yéen a ngi noonu ñu ngi leen koy doolee dénk di leen doolee dénk di leen doolee dénk ndax sunu borom ci boppam ba bëggee joxe misaal ci ñu baax jigéen la joxe ba mu bëggee joxe misaal ci ñu baaxut itam jigéen la joxe kon yéen su ngeen baaxee lépp baax su ngeen melee weneen melokaan wala yasubillah lépp yàqu dara ba masalan lillaziina kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata luut kaanataa tahta abdayni min ibaadinaa saalihayni fa xaanataahumaa walam yughniyaa anhumaa mina llaahi shay'an waaye itam mu jëkkat ni daraba llaahu masalan lillaziina aamanu yàlla nee na maa ngi joxe misaal ci ñi weddi daal di joxe jigéen maa ngi joxe misaal ci ñi gëm joxe waat jigéen kon yéen ngeen xam ne yéen a su ngeen jagee lépp jag su ngeen jëgut dara du jag xam naa ne kilifa ga damaa waxaat ni dafay teew si rek waru ma woon a yëkkati moo tax jëmbul wax ji ma naa bañ doxee noona waaye daal ñu ngi leen di jot santam jot leen ngërëmam ngantul yaram wu sawarut moo ko moo ko tee ñëw nde biig day bi ñu julligee la ma waajal ndax bu ma xëyee dañuy war a ànd dem ca jumaa ji kon eh, yéene ñëw la fanaanoo woon waaye xam naa ngant loolaa ko eh, dab mm, yàlla na suñu borom saafara ko te saafara ñun ñëpp ak Serigne Touba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Serigne Cheikhouna jërëjëf kàddu yi am na solo lool matale na eh, mat nga ndaw sëkk yal na yàlla fay yow te taxaw la soxna yi ni ma ko doon waxe léegi am na ci nos goo xam ne ci ñoom la nekk ñoom ñi yor liggéey bi eh, jëwrin yi jox nañ ma benn note léegi boo xam ne dañ koy def ñoom ci biir liggéey bi muy lu am solo dañ ne dañoo séddale basmala bismillahi rahmaani rahim trente mille séddale salaatu ala nabi trente mille kuréel gi séddoo ko ci biir ñu di ko def ci biir waxtu wu ñuy liggéey ngir bañ a wax ngir bañ a wax waxi waxtaanu kër loolu di lu am solo di lu ama am solo loolu wax dëgg yàlla sedd na xol suñu seexu naa loolu boo demee nga wax ko sëñ Fallou tamit ne ñu ngi doxe noonu te wàññiwul dara ci cet gi ak gaawug liggéey bi ak taxaw gi loolu kon ñu ngi ciy sant bu baax di ci gërëm ñaan sëriñ bi mu nangul ñu yàlla ñu sëriñ bi nangul te lépp lu ñuy def rekk ñu bañ cee gis suñ bopp dara yi ngistal bañ cee am seytaane sori ci daray naw jëf tamit bañ cee am daray ba yëkkatiku wala ak yi bañ a am ci liggéey bi yàlla ñu ko yàlla defal te te te defal ñu tawféex sëriñ bi kon mu mel ne waaw mu mel ne kon jataay bi nii nii nii nii nii rek la woon ñi ngi sant ñëpp ñu fi teew eh, di leen gërëm sëriñ bi xëy na mën naa am ñi nga xamul ci kilifay daayira bi ñu nuyool leen sëñ Abdou Lahad Muxtaar xam nga ko moom ci secrétariat secrétariat secrétariat bi la bokk suñ Abdou Xaadir mii moom moo yor mooy responsable lu intique bi maanaam internet war xam ñi fi toog ñëpp daal ay jëwriñ lañ sëriñ Seexuna Mbàkke mi moom it ci jëwriñu organisation la bokk moo jiite soxna yi yu liggéey si ci ajuma ci moo ak sëñ Moustapha Mbeng waaw ñu fi waaw ak Baye Saliou Ñang me moom it bokk ci jëwrin organisation yor magasin bi moo ak sëñ Moustapha Mbeng sëñ Abdou Khadir Bousso mii sëñ Abdou Khadir Bousso mu sëñ Alaaji Seex moom moo jiite comité scientifique bi lajnatul ilmiya bi bu bu bu daayira mu xadimatul xidma maanaam bokk ci biir commission culturel xam nga ne daayira bi dañuy def ay ay takwin di former imaam yeeg noddukat yeeg ak lu waay yittewoo ci diine rek dañ koy dañ koy def fekkee am ngeen jàkka yu nekk foofu te nodd yi xaw a kii bay boo nga nga nga teel ko <laughs> waaw moom moom dafa ñëw di làqatu waaye man xam naa ko waaw ñi ngi sant it euh, teewaayu soxna Njaxat Mbakke bintu sëriñ Abdul Ahad Mbakke ak soxna maam Awa Touré moom sëriñ Abdul Xaadir ñoo ngi ànd ak soxna Mbayang ci liggéey bi seeni mbooloo ñoo ngi fi waaw dañoo wax ne soxna Njaxat Mbakke moom Cheikh Abdul Ahad mbooloom mi ngi ànd ak soxna Mbayang ak soxna maam Awa Touré moom Cheikh Abdul Xaadir soxna maam Awa Touré gannaaw ñi fi nekk ñëpp xam nañ ko ñoo ngi ànd ak soxna Mbaye ngi ci liggéey bi seeni mbooloo ñi ngi fi kon ñu ngi leen di sant bu baax ñoom it di leen ñaanal di leen gërëm kon su ko defee sëriñ bi yow mii fi teewal sëriñ bi kon ñaan gaa ngi noonu ci sa loxo nga ñaan suñ noppee jëwrin yi muy soxna Mbaye ak soxna Bintu am nañ daje bu ñu def ñoom jëwrin yi rek ak secrétaire général bi ak jëwrin yi am na réunion bu ndaw bu ñu def ak ñoom ñu bàyyi ko xel asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa